yéen bi nga demee ba bi nga ne jaay ma café Touba ku lay jaay nee na jàllo nga xam ne dëkk bi toj na bu ñu demee ba tukulóor dugg si café Touba tukulóor <laughs> nga xam ne daan xëy rek am am am am ay sàmmam ah am quinze bëy ah quinze bëy cent nag quarante quarante cinq xar ñu dem ba tukulóor yi léegi di jaay ay kii café Touba nee na jàllo café Touba li Mbaye waxoon nee na léegi da ngay dégg tànn bi ku koy tëgg ñu ne gone gi jàll mu ne ko xam ne sabar yàqu na <laughs> mbay jëfee baaxul ah bilaay <laughs> mbay jëfe mbay jëfe nee tëgg sabar nga ne ku tëgg sabar ci ne booy jàllo mu ne sabar yàqu na mais eh, eh, yow léegi eh, léegi léegi géer ñoo daa xam kii wayaan géwél yi ci xew yeeg yëpp géwél yi dañu bëggoon grève géwél yi bëggoon grève ah ah métti na de ñàkk nag may def loolu nguur Macky Sall si nguur Macky Sall gi ñu ni nga ni Idrissa Seck di transhumé dem noonu la géer yi transhumé tamit dem ni ki géwél transhumé lay doon ah xamoo nooy def xam nga nee na jàll nee na jàll mi segg café café Touba kay bàyyi faa lekk daan defar wala yenn libu yi sax wala ajoor ajoor waaye yow jógee fi Fuuta gi <laughs> te laataa muy mokkal nag xaw nañoo dee nee na jàll de nee na jàll segg na lu ne dama tubaab yàqu na. nee na dox ma nga dem kay ñaari mburu yi yooyu am nga mel sax na yaa ngi ndékki. Ah, am na dañuy yeewu xaaraañ dëkk bi daa métti de. ay lébu laa ay lébu yan. man ay lébu laa ah nga dëgg de yàlla lébu nga yor foofu. lébu laa yor am sa doom jàng na wala day xaar ba bu semaine bi ñëw. sa doom jàng na. amoo élève. am naa na. dégg nga li ma la wax sama nee na jaay gis nga bi ñëw te kay daaw bi la ñuy yóbbu. dëkk bi daa dox damay ah bu njëkkoon école bu ubbi xale yi dañ lay romb yëre yu bees di xeeñ. saag yu bees yi ah. jamono yàqu ah dañuy taxawaalu rek. xale yi ku leen juróon yërëm leen. loo romb ko. mais yow eh yow réew Macky bi boo ci boolee naxari naxari bi da ngay gaaw a gowaatre gowaatre ngay def gowaatre wala AVC. liñ naa ma nga yow fu AVC ak diabète yëpp stress la rek waaw naxal gu la nag Macky Sall teg nga siy boole jàmbat foog nga ciy boole kaf ah foog nga ciy boole kaf de ah ah jarul mer de Macky Sall Macky Sall loolu la bëgg di ñu xaru ñu xaru mer ba xaru waaye yoo xam ne du ñu bàyyi de waaye yow booy yéen jàng xool góorgóorlu leen de ana kay eh, saag amuloon kay ak saak ndeysaan jamono yi kii de Abdou Diouf dañu daan tuuse élèves yi keesu kay ñu tuuse ñëpp ah tuuse am na ah non tuuse amatul de waaw wala tu wala tuuse ah soo bokkul APR so ah ah yow loolu da nga da nga bañ du sa mag ji bu kii sa mbokk ah kii bi Demba Niang bu mu nekkee euh, mairie yow la jox contrat yi ay mbokk am la ko jox tëb gi wala géer yi ah yow kay bu ñu tamit waroo na lekk nag lekk nga njaw ture ah lekk moom ma yaa bëgg bëgg lekk daa doon ñaam daa doon ñaam dala laa xam ne loo ma xam daa doon ñaam nu ful nag nee na lu mu lekk say ay kii ay kii social ak yooyu ma dafa naa tuuti amatul sax xanaa ah mais yaa tamit même bourse yi bourse yi koñ bi fii bourse bourse sociale tamit soo nekkul APR duñu la jox li métti na nag ah ah yéen yéen a ko jëkkee bu social yi yéen ji ñoo xam ne amuñu benn problème ngeen jox leen vingt cinq mille ah mooy loolu kay mooy loolu rek